li xew tey ba ñu woo leen ci tey di leen bëgg cee def bii seede ci jamono mooy dañ woo ci benn réunion nan nu ko waxee nag ba nu fa demee leneen lan fa fekk ci gàttal parce que dañ diw ak diw ak diw ñoo war a nekk ci tey wax ñu profil yi bañ demee fekk nañu beneen mobilisation bu jéggi dayoo a ah, ñun nag balaa ñoo dem bi ñu demee waxtaan nañ ci suñu biir ñun coordination départementale de Pikine des Sages daal ni ku ñuy wax la Abdoul Thiam bu ñu demee moo yor sunu kàddu dana jël parole waxal nu la nga xam ne moom mooy suñu yéene ca wax ba foofu ba ñu demee Bayel Abdoul Thiam yëkkati na baaraam pour wax ñu gàttañ lu ci loolu mu insister ñu gàttañ lu ni ko doo fi waxe ñu am ci lu ñu naq di ànd ak moom gedd génn dem loolu nag li ko indi booy xool tey jii lii feeñ tey dafa am lu ko jiitu mooy coordination départementale ci Sadio au niveau de Pikine am na problème am na lëj-lëj situation bu ñu war a lijjanti la ah mbir mi raam na bu yàgg dañuy dellu siwaat ci ginnaaw pour xamal leen ni am na lu jiitu woon lii mooy Ablaye Seydi moom la njëkk fal ci coordination départementale bañ koy fal sax ca la ko biral Mbaye Ndiaye ministre d'état euh, nga xam mooy mbirum structure parti ma ngi teew ak ministre yu bare ba ñu génnee ci loolu dañuy toog dox tuuti ñu yegg ci élection député yi ci Thimbo am lu mu ci mébatoon pour li ñuy nax nax tête de liste taxawee beneen taxaw gàttañ lu ca moom ña mu àndal ni loolu du ko def tey du ko def suba mu indi seen ñagas-ñagas ci seen diggante comme dañ doon xeex nag ku ci ne xeex nga sa morom Ablaye Timbo daal di lijjanti ay pexeem jël ay xaalisam def ca moo ko ci def ba ñu tas loolu biñ ko tasee ba pare ñu war a defaraat structure yi tàmbali ko ci suuf yéeg ca kaw bañ ca demee ba ñu monté lépp ñu daal ni ma xam dem waxtaan ceeg moom mu ne da ngeen di bàyyi ba élection présidentielle yi passé ngeen monté moo ko wax ba mu passé woo nañu ñañu woo ñu ñëw ñu monté teg ma ca kanam ku ci ne jël poste ci maanaam coordination ñii toog sama ginnaaw ak ña ci ñu fi nekkul booba ak léegi nag jàmm amut ndax mbir mi li ko sooxe mooy Ablaye comme ma xam liñ ci gis mooy dañoo bëgg ñu leen déggal ñoom di topp ci seen ginnaaw li tubaab di wax vale loolu nag ku nu xam nun ñii taxaw fii te moom xam na loolu war xam ñun boobu ndox duñ ko naan boobu boobu mburu duñ ko lekk loolu indi sunu digganteeg ñoom ñagas-ñagas bi mu indi kumba am ndey ak ko amul ndey bu ñuy joxe njariñ ñoom la ñuy woo bu ñuy joxe information ñoom la ñuy woo bu ñuy woote ñoom la ñuy woo ñun dañuy for ci nag rek yenn saa yi lii moo indi sunu mbir ñuy ñaan Macky Sall mi nga xam ñun moom la ñu àndal moom la ñuy liggéeyal depuis bi APR amul ba ni APR amee na wax ci lii woonu waxtaan ñun nangul coordination bi am na ba pare installé nañ ko ba pare leneen luñ ciy waxtaan ñu wax ko leneen dégg na nag wax yi bare na ku nekk da nga indi sa version waaye billahi wallahi beneen wax bu ñu yóbbu ci président ay kàcc la lii ma leen wax ku ma jox kaamil ma teg ci sama loxo waat ko lii mooy li am ci situation Pikine bi